yéen ñi di suivre suñu kër gi di Faaida TV bu ngeen bëggee di jot ci suñuy programme ak di seetaan suñuy vidéo da ngeen di abonné ci seen bii di Faaida TV ngir abonné da ngeen di bës ci bind bu xonk bi ñu bind abonné waaye bu leen fàttee bës ci kolos bi ngir man di jot suñuy notification te bu leen fàttee zem tey partagé suñuy vidéo ak Faaida TV njariñ kase la leen di jural asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi suivre suñu kër gii di Faaida TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey ñoo ngi fii ci Thiès ci pencum maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridine ci Medina Fall mbokk yi tey ñu seet si jàmbaar joo xamante ni ñu bari xam nañ ko ci wàllu ñaan di doomu kilifa goo xamante ni ñëpp ràññee woon nañ ko fii ci Thiès di Serigne Kala Jaxate tey ñu toog ak doomam di Vieux Jaxate macha allah doon koo xamante ni. wàllu ñaan suñu borom may na ko ci lu baree baree baree bari xam naa tey dinañ dikk nag ci ay mbir yoo xamante ni moom képp koo xamante ni topp nga ñu tey déglu di nga dégg lu yéeme. dinañ dikk ci li nga xamante ni mooy coupe du monde ak match Sénégal bi nga xamante ni moom lan weesu ak bii nu jëm bi nu weesu dinañ ci defay jàngat bi nu jëmit dinañu ci wax lan moo ñu ci may ndam incha allah mbokk yi bala ñuy sori dañuy bàyyi Serigne Vieux Diakhaté mu nuyoo Serigne bi ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu euh, ginnaaw bi ñu sante yàlla ak yenent bi di nuyu sant suñu waajur yi di nuyu bépp kilifa diine ak kilifa aada nga xam ne yaa ngi teewlu di ñu déglu waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla yenent bi nag ah ñu ngi daal di déglu nag jublu ci li nga xamante ni nii mooy waxtaan bi incha allah. macha allah ci nuyoo bu am solo boobu nga xamante ni. def nga ko sëriñ bi xam naa bala ñuy sori lool ci kàddu yi ngir njëkkante ak temps bi dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom lañu bëgg a waxtaanee bi ci njëkk mooy wàllu kàttan doon loo xamante ni ñu bëri yittewoo nañ ko jamono ji nga xamante ni ci lañ toll. sëriñ bi mbiru kàttan naka ngay doxalee ak moom ak naka ngay jëflante ak doomu aadama yi ci wàllu kàttan. waaw mbiru kàttan moom wax dëgg yàlla suñ borom may nañu ci secret yoo xamante ni nii. ak loo mbir yoo xamante ni nii daal lu wér la waaw moo xam nit ki nga xamante nii dafay sëy ak soxnaam di gaaw a daanu wala ki nga xamante nii maanaam buy sëy ak soxnaam du jot soxnaam parce que ñaari mbir la yoo xamante ni nii yu am te fekk ràññee ko nit ki mënoo faj jàngoroom am na koo xam ne du ñàkk néew kàttan waaye da jot soxnaam ndax soxnaam mooy sor yi mais am na koo xamante nii soxnaam dina jot soxnaam waaye dafay gaaw a daanu du li bëgg am bànneex ci néegu séyam du ko ci am mais ñaari yooyu yëpp bépp boo xamante ni am nga ko ci jàngoro boobu incha allahu buñ jëflantee suñ borom dina la saafaraal li nga xam ne mooy sa jàngoro sëriñ bi maanaam sëriñ Vieux Diakhaté moom kàttan rek ci lay dox wala góor gi nga xamante ni eh, awraam dafa gàtt ndax day yokk awra wala déet waaw sëriñ vie dina dox ci li nga xam ne mooy yokku awra góor góor ki nga xam ne awraam dafa gàtt wala ki nga xamante ni nii dafay am soxna mën na takk soxna waaye soxna si mën na am rab boo xamante ni nii day delloo awra ku góor ki. loolu day nekk maanaam rab boo xamante ni day delloo awra. waaw loolu moom day am am na jigéen yoo xamante ni dañuy am àndandoo seen borom kër bu leen takkee da ngay gis ku góor ki awraam bu fekkoon nii la dafa guddaay bi nii la da ngay gis day wàññeeku awra bi. day wàññeeku dina dem ba toll foo xamante ni nii dina séq ak soxnaam waaye jot soxnaam dootu ko man dootul mën a jot soxnaam su boobaa nag jafe-jafe day daal di commencé am ca biir kër ga ndax soxna si du yëg boppam ca néegu sëy ba ku góor ki tamit du yëg boppam ca li nga xamante ni nii mooy mbiru sëy ba waaw loolu moom dafay daal di am waaw macha allah sëriñ bi ci leeral bu am solo boobu kon daal maanaam ni wàllu awra bu gàtt daal des fois nit dina takk soxna mu amee rab boo xamante ni moom mooy delloo awra bi macha allah ci leeral bu am solo boobu sëriñ bi xam naa bala ñuy kiiwaat rek dañuy dikk ci li nga xamante ni mooy wàllu seet. wàllu seet doon loo xamante ni jamono jii tamit nit ñi yittewoo nañ ko waaye gis seet gu leer ñi moom moo jafe sëriñ bi seet naka nga koy defee. waaw ñun moom seet moom ah, ci suuf la ñuy seetee waaw mais lañuy seet seet goo xamante ni nii ah duñ ne ñoo ko fi dàq de waaye nga pour nga gis ku ñu ko dàq yombul ndaxte buñ lay xoolal seetal dinañ la wax yow ci sa bopp loo xamante ni nii kat di nga ne ah wax dëgg yàlla day boo wéetee yow kese di nga xam ne wax dëgg yàlla kii ma toogaloon mu ma doon xoolal gis na ma te wax na ma li nekk ci woon ndax seet la boo xamante ni nii seet gu wér la bu nu jàng nekkul seet goo xam ne seetu tàppale la wala déedéet ndaxte ñun moom doxuñu ci dara tànk caaxaan lépp lu ñuy wax ak yow rek lu wér la te dëgg la waaw. sëriñ Vieux Diakhaté ci ndox lay seete wala suuf wala ci yan anam lay seete. waaw Serigne Vieux jaxate moom ci ñaari mbir lay seetee amaana dina seet ci li nga xamante ni nii moom mooy wàllu suuf ramli la turu seet boobu moom ci lay seetee dina seet tamit ci li nga xam ne moom mooy kurus mais seet bi nga xamante ni nii ci la woolu taxaw ci teg ci tànkam. tey foo ko mën a woo mu taxaw fa wax ak yow mooy li nga xam ne moom mooy seetu ramli bi suutu suuf bi waaw kooku moom lépp lu ma jaaxal ci doomu aadama yi ma bëgg koo xam su ma toogee ci kaw suuf bi dinaa xam li nekk ci dëgg dëgg kii lan mooy mbiram waaw maanaam ramli daal moom Serigne Vieux Diakhaté moom wóolu na ko lool te ku mu ci seetal dana la gis moom Serigne Vieux Diakhaté Serigne moom wax dëgg yàlla ramli moom mataar mën na la wax ne la ah nekk na loo xamante nii lu nu jàng la tarbiyu ko jàng ko mokkal ko te génn nañ dem ci ay dëkk kilifa ak ay dëkk sëriñ yoo xamante nii bi ñu demee wax dëgg yàlla fekk nañ leen ñu koy def mais bi ñu demee nangul nañ ñu ko te bi ñu demee retourné na ñëw topp suñ ginnaaw ne ñu pour ñu jàngal leen ko ñu wan leen bunt bi ak nan lañ ciy duggee ak nan lañ ciy génnee parce que dafa nekk seet boo xam ne seet bu yéeme la ndaxte seet la boo xamante ni nit ki koy def su ko xamul mën na ci toog di ci liggéey ba dund am dara du am dara. déedéet Serigne Vieux Diakhaté ndax bu la seetalee daf lay génneel say sarax wala daf lay seetal rek bàyyi la nga dem. waaw Serigne Vieux moom bu la seetalee da lay wax ne la carrément say sarax lii ak lii ak lii la. ne la yow ci sa jëmmi bopp dama génneel sa sarax nii ak lii ak lii nga dem nga génneel ko sa bopp waaw nga génneel sa sarax yooyu sa bopp mais nag bu fekkee dañ la pare pour ñaanal la mën nañ la wax nga génne say saraxu bopp nga génne ko nga retour nga ñëw nag ñu defal la li nga xamante ni nii mooy wàllu ñaan bi waaw. Serigne Vieux Diakhaté ndax ku ku muy seetal day ñëw jàkkaarloo ak moom gis ko jëxëran wala nit mën naa nekk ba États-Unis Serigne Vieux seetal koy mbiram. fu nekk ci àdduna foo mu nit munti nekk ci àdduna turam rek na soxla turam rek na am turam su ma amee turam rek lépp lu ma bëgg xam ci moom. lu nekk dinaa ko xam ci moom. turam kese du jar turu ndayam ak baayam. jarul turu jarul turu baayam turam képp rek naa xam turam mu ne ma diw laa tudd kese amaana sax bu fekkee turu dàqantal la moo xam ñu tudd seex ñu koy woowee élage wala lu munti tuddu mu joxe élage boobu te fekkee na élage boobu lay wuyoo rek bu ñu toogee fii lépp loo xam ne mi ngi ci moom danañ ko ko wax ah. waaw. macha allah Serigne Vieux Diakhaté ci leeral bu am solo boobu nga xamante ni moom nga def mbokk yi ñuy suivre Serigne Vieux Diakhaté mooy dëkk Thiès nekk fii ci Medina Fall numéro téléphone am moo nekk noonu ci suufu écran bi képp koo xamante ni bëgg ngaa ko ak moom incha allah boo ko wee di nga ko jot Serigne Vieux xam naa bala ñuy sori rek ngir njëkkante ak temps bi dañuy ñëw ci li nga xamante ne mooy wàllu jigéen ju taxaw Serigne Vier jigéen ji nga xam te ne dafa bëgg doom ndeysaan te mu doon lu am solo ci doomu aadama ñu bari bëgg ko waaye mu bari jigéen ñoom te ne dañoo am jafe boobu ndax loolu ban saafara nga ciy indi ndax da leen ciy jàppale wala déet. waaw kooku dañ leen ciy jàppale parce que nit ku nekk moom jigéen bu ci ne bu duggee ci néegu sëy rek ñaan na yàlla am fa li nga xam ne mooy tout tànk waaye nag am fa tout tànk dafa nekk loo xam am na jigéen ñoo xamante nii dañuy am li nga xam ne moom mooy taxaw. taxaw mën nañ taxaw taxawaay bu yàgg mën nañ taxaw taxawaay bu bañ a yàgg waaye bu fekkee ne ñaari mbir la moo xam wàllu rab la wala wàllu li nga xamante ni nii ku jigéen ki la wala ku góor ki parce que ñaar dafay am léeg dañuy foog ci ku jigéen ki la fekk na ci ku góor ki la moom mooy ànd ak rawxaan boo xamante ni nii lépp lu mu tëdd ak ku jigéen ki sëy ak moom mu ne day yàqu doom du taxaw seen diggante doom du ci am ay ngi dégg mais ci ñaari côté yooyu yëpp bu fekkee ku jigéen ki la moom incha allah bu ñu jëflantee moom suñu borom dina ko may li nga xamante ne nii moom mooy tànk. maanaam bu fekkee tey jigéen dafa taxaw ndax yow bu ñëwee ci yow man ngaa xam ndax ci moom la wala ci borom kër. mën naa xam ndax ci moom la wala ci borom këram ci lu wér nee naa la ci seet bii su ma ci toogee yow ci sa jëmmi bopp sax su ma la xoolee même jigéen bi bu ma xamee ne yow leneen ngay def wala leneen ak leneen su ma toogee fii dinaa xam yow mii yow kaay kan. maanaam bu fekkoon jigéen sax moom euh, dafa nekk ci néegu sëy bañ caa am doom di def am doom sax di nga ko gis. même bu fekkee jigéen dafa nekk ci néegu sëy bañ fa am doom su ma toogee dinaa ko xam ne carrément kii moom moo bëggul am doom hmm. moom moo koy yàq moom moo bëggut am doom kooku moom wax dëgg yàlla dañ koy xam ci bu wér dañ koy xam ndaxte seet bi nekk na loo xamante nii même li may seet bu ma la joxee suuf bi ne la waxal sa soxla nga ñaanoo sa soxla nga delloo ma ko rek ma dóor ci suuf bi xool dinaa xam ne yow mii da nga ñëw pour fenloo ma wala da nga ñëw pour wax pour xool ci say mbir. maanaam képp ku ñëw ci sëñ Vieux Diakhaté ba ngay jóg nga ni damay dem xool ko testé ko ndax am na xam-xam wala déet la ko tax a jóg bu ñëwee di ko xam. bu egsee su ma toogee fii nga xool lépp lu nekk lu tax ay tànk li waral ay tànkam mu jóg kooku moom lu wér la. ah macha allah Serigne Vieux Diakhaté ci leeral bu am solo boobu kon bépp jigéen boo am te ni ndeysaan yaa ngi ci néegu sëy te bëgg njaboot suñu borom mayegu la ko dikkal gisanteeg Serigne Vieux Diakhaté incha allahu rabbi bu leen yàlla juboolee euh, incha allah am nañ ci yaakaar bu baax a baax ni dana saafaru jàmbaar la lool ci liggéey bi nga xamante ni mu ngi koy def macha allah Serigne Vier xam naa dañuy dikk ci li nga xamante ni mooy mbiru kayit mbiru kayit mu doon loo xamante ni tamit bari na ñu mu yitteel lool waaye bari na ñoom te ni génn na nga dellu si ci seenum réew te mënuñoo ñëw ndax jafe-jafey kayit mbiru kayit sëriñ bi nakk nga koy saafara. waaw wàllu kayit moom dafa am yoon parce que liggéey boo gis lu nekk dafa yoon. parce que am na fi garab yoo xamante ne nii sunguf garab yoo xamante ne nii moom la ñuy jël ak aaya bi ñuy bind boole kook li ñuy liggéey buñ ko liggéeyee jox la ko foo munti nekk boo fa déposé wàllu kayit di nga am kayit bu fekkee da nga nekk ba bitim réew bëgg am kayit pour ñibbisi wala bëgg am kayit pour liggéey incha allah ñu la ko defaree nga utiliser ko ma ne doo génn ci 15 jours te fa nga déposé say kayit woowuñu la 15 jours juróom-ña 15 jours fukki fan ak juróom doo ci génn te wowuñu la ci fa nga nekk. Hmm. waaw. Ah, macha allah sëriñ bi loolu moom wax dëgg yàlla moom tawféex dëgg la kon gaa yi nga xamante ni ñu ngi bitim réew te bëgg mbiru kayit kayit jafe leen lool fexe leen a jokkoo ak sëriñ Vieux Jaxate dégg ngeen ko noonu ci ni ma ko waxee mais mbiru kayit ki ko bëgg bitim réew day ñëw ba ci sëriñ Vieux wala mën naa toog fa mu nekk nga lijjanti. waaw ki nga xamante ni mi ngi ba bitim réew bëgg mbirum kayit. ñaar dina am bu fekkee ne liggéey bi ñuy defar mën nañu ko ko def yónnee ko ko mu jël ko dinañ def liggéey bi jox ko ko mu jël liggéey bi bu fekkee ne nag mënul jot ci liggéey ba mën nañ ko duggal xëlwa bi ñu ko duggee xël xëlwa ñaanal ko mu ne incha allahu balaa fukki fan ak juróomi mat mu am ay këyitam waaw ah macha allah macha allah macha allah sëriñ bi kon mbokk yi ñuy suivre dégg ngeen sëriñ Vieux Diakhaté li nga xamante ni wax na ko ci mbiru kayit kon yéen moodu moodu yi nga xamante ni yéen a ngi bitim réew bëgg a dellu si ci seenum réew te problème mu kayit téye leen fa bu ngeen déggante ak sëriñ bi jaxate incha allahu rabbi suñu borom dina leen ci defal tawféex sëriñ Vieux mu mel ni waxtu yi dafa jot xam naa li ñuy tëjee mooy mbiru kaso. wàllu kaso tamit nit ñu bari dañuy am problème ci wàllu justice. te dañuy bëgg ko leen ci dimbali sëriñ bi mbiru Kassé naka ngay defee ak moom. waaw wàllu justice moom mbiru yoon kooku moom mën naa laa wax ma ne am na noo xam ne sax su ma ko ci waxee dañuy foog ne ak ndamu la te yàlla rek ma yeyoo ndamu borom bi subhaanahu wa moom rek moo yeyoo ndamu mais mën naa la wax ne nit ki problème boo munti am du mu rëy rëy rëy rëy rëy suñu déggantee jëflantee wax la incha allahu kaso googu doo fa dugg wax ne la incha allahu kaso boobu doo fa dugg. ak problème bu nit ki mën a def bu dikkee ci yow. ti am bu ñu toogee man ak yow ñu jëflante ma wax la ne kaso boobu yow doo fa teg sa tànk doo dugg ci kaso waaw. ah sëriñ bi loolu yéeme na de. waaw ma wax la ne kaso boobu doo fa dugg doo fa teg sa tànk. waaw bu nit ki duggee kaso ba noppi nag ndax mën nga ko faa génn waaw même bu fekkee nit ki dugg na kaso. ama am na loo xam ne buñ ko ko joxee mu lekk ko ñu def ko ci lekk mu lekk ko am ci loo xam ne ñu dem yóbbu ko ci palaasu li nga xamante ni nii moom mooy xorom dong liggéey ko foofu buñ ko fa liggéeyee mu ne incha allahu dana génn parce que euh, ma wax la ne ñun dafa am ñetti mbir xam-xam yoo xamante ni nii yoo xam dañ ko téye bi ci jiitu muy xam-xam li nga xam ne wàllu alquran kooku jàng nañ ko xam-xam bi nga xam ne mooy wàllu garab jàng nañ ko ak xam-xam bi nga xam ne mooy wàllu suuf dañ ko jàng moo tax ñetti façon xam-xam yoo xamante ni nii wax dëgg yàlla suñ borom boole nañu jox ñu ko ñu tënk ko téye ko moo tax lu mu mitti miti miti ci fëggee buntu néew ma du buntu boobu ah bu sottiwul it day borom xanaa mu toog xaar la neen waaw mu toog xaar la neen macha allah Serigne Vieux ci leeral bu am solo boobu kon ñi nga xamante ni eh, dañoo am eh, problème waaye ci wàllu yoon Serigne Vieux Jaxate dégg ngeen ko noonu ku ci dikk dina la jàppale ba suñu borom tàggale la ak jafe-jafe boobu xam naa Serigne Vieux waxtu wi kii na xam naa li ngay tàggatoo rek ak sa kàddu gu mujj waaye du ñàkk nag nga indi tuuti ay leeral ci garab yi nga xamante ni gis nañ ko fii ci vitre bi mu mel ni day da faj ay wàllu hémorroïde ak ay tension gi ci baree baree bari. waaw yi moom dañ ciy faj wàllu hémorroïde ak asthmatique ak ndoxum siti loolu dañ koy faj wàllu émeri asthme ak ndoxum siti dañ koy faj kooku moom yàgg nañu liggéey loolu di ko faj te ñu ngi ciy am ay résultat bu leer di ci am ay résultat waaw nekk na loo xamante nii tamit du loo xamante li ay tappale la wala déet déedéet dafa nekk loo xamante ne nii lu wér la mooy li ma lay wax rek nee naa la fii ma toog di wax ak yow sama néegu waajur wu góor la fi la toogoon di liggéey lii may liggéey lépp lu may wax ak yow fii dëgg lay doon ci man su ma nee la fii mën naa sax ay dunq naaw nga ne ma naawal ma sax ay dunq naaw bilaay wallahi lépp lu ma toog ak yow wax la fii ma ne la lii dinaa ko def jàppal ne loolu dinaa ko def waaw lu problème garaaw garaaw ma ne la kii dinaa régler problème am dinaa ko régler waaw waaw macha allah sëriñ Vieux Diakhaté ci leeral bu am solo boobu kon mbokk yi nga xamante ni yéen a ñu doon suivre ci suñu kër gi di Faaida TV jëmm ji ñu toogal muy sëriñ Vieux Diakhaté niñ leen ko waxee sànq. ni ma ko waxee léegi nekk ci néegu way juróom way juróom nag ku nekk xamoon ko lool ci faj aajo yi doomu aadama yi waaye doonoon ku yéeme lool te kéemtaane muy sëriñ Kale Diakhaté macha allah mbokk yi gi ngeen ñu doon topp di leen wax ba beneen yoon incha allahu rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.